maa lay siyaare grand. maa ngi dellu ziar. sant yàlla rek. booy ñaan Lac de Guiers. non ñun pare nañu. pare nañu lii rek soo gisee rek nga ne pare nañu. noppi nañu. waaw di ñaan yàlla rek. yàlla may ñu ndam. nee na tey ngeen mu mujjee dugg géej waaye du ko defati. non garaawul. yàlla. yàlla la ñuy ñaan ndam. tey fi mu nii wax wax wax ju gàtt laay wax. ñun ñoo bokk ndey. Pikine ñun ñoo bokk baay balaa ngay xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay suba Ama Baldé am takkusaan ñu xool yaa ngi may dégg gis que voilà daa am benn jinnax bu périmé. maanaam c'est-à-dire du ma tudd tur mais daa am bu périmé. doo bëgg a waxal. bu périmé. mooy jinnax. nga jinnax bu périmé bi. ma def si code. ana ra maa ngi jox rendez bu maa ngi jox bu ñépp ñëpp le 21 tribunal bu Pikine maa ngi moom. le 21 maa ngi jox Pikine yëpp rendez-vous tribunal maag Baboy. Pape Sarr.